maa ngi jaajëfal Sénégal yëpp di leen nuyu di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu réew di ñaan yàlla suñu débat bi yàlla nañ ko commencé ci bisimilah rahmaani rahim te jégg yeggali ko ci alhamdulilahi rabil alamin dalal ak jàmm Alioune Dicko nga nekk marin xam naa ni say mbokk marin itam ñu ngi lay seetaan actuellement Allô Sénégal moom yëf yi ñëpp la ku ne am nga fi place euh, lu nekku ku ci donc mu ngi noonu mm. euh, mu mel ni yéen depuis un am na problème yu nga xamante ni ci ngeen daal di nekk est-ce que tey mën nga ñu leeral exactement problème bi lan la ak euh, nan nan la demee ñu bàyyi la nga dugal ñu ci histoire bi. waaw d'abord maa ngi leen di jaajëfal ci invitation bi parce que aussi tamit euh, euh, jafe na à nos jours nit toll ci benn point bi soxla dimbal ñu teg ko loxo te ñun instant bii nii foofu lañu toll. dañoo nekkoon di liggéey ci benn société bu ñuy wax al makaaru al asma mhm. société bi mu ngi basé au niveau de yoof Tongoor Yoff mhm. yàlla def ñu fay liggéey des années mosuñu fa am benn jafe-jafe wax dëgg neex yàlla ba récemment mois de janvier passé ñu jóge Dakar ne dañuy dem géej pour dem liggéeyi nappi dem nappi mhm. bi demee di nappi bon gis nañ ni suñu commandant bi dal na ci jën boo xam ne maar détaali foo ko natt ci wàllu capacité rek weesu na ko euh, ci li ma bëgg a wax pour mu leer maanaam mooy man mi nga xam ne man marin la mënuma la wax ne jën bi nii la toll ci wàllu capacité ndax bëri parce que jën bu bëri hmm. euh, li nga xam ne moom moo nekk machine yi nga xam ne ñoo censé pour xëcc filet bi pour yéegal ko hmm. euh, bon dem nañ ba gis ni machine yi kat nekk ci bato bi te ñu defaraale ko moom ak bato bi. Mhm. amuñu doole pour yéegal jën bi. ndax diisaay ndax bëri waay. Mhm. ñun marins yi ñu porté wu volontaire euh, dugg ci biir xar poosu mbaal bi di tibb jën bi di ko def ci ay kees di ko yéegal bi nga xamee di dem na def loolu lu tolloog vingt deux heures et demi wallahi vingt deux heures demi ba ay environ vers quatre heures et demi yéen a ngi ci ndox ñu ngi ci biir ndox mi. jusqu'à 6 heures 0 minute lay filet bi di soog a yéeg. ñu jóge ci loolu man je dis que loolu duma ma ci jaajëfal kenn parce que doomu aadama sooy def sa liggéey lu ne mun na la cee dab. li ngeen def noonu risque la itam. waaw c'est vrai que risque la mais man je dis que pour man personnellement bi ma koy def ak samay morom ya fa nekkoon defuñu ko woon pour euh, lu ci mel ni comme risque. dañ ko defoon soo seetaanee vidéo yi sax da ngay gis ni marins yi bi ñu koy def ils étaient tellement heureux maanaam ñu ngi kaf di foo di ree parce que ñoom dañoo bëgg sax ñoom maanaam liggéey bu demee noonu boo xam ne amul taxaw mm. affaire bi di daw fépp ñëpp di liggéey mm-hmm. boo ñu nekk ci loolu ba yàlla def jën bi yéeg ci kaw donte def nañ ci ay heure ba pare léegi jën bi yéeg na bi jën bi yéegee à l'aide des machines mm-hmm. commandant bi jël décision le commandant du, le commandant du, navire mm-hmm. mu jël décision ne dafay ñibbi si Dakar ñun marin suñu yoon nekkul ci yoon yenn décision yi nga xam ne moom la concerné mm-hmm. parce que moom moo nekk chef ci bato bi décision bépp bu mu jël rek ñun marin mënuñu ci leneen lu dul exécuter ko d'accord bon ñu toog fekk si ko ci muy dep mu départ di daw mu ñëw ci suñu chef parce que marin yi dañuy am ce qu'on appelle bosco mm-hmm. mu ñëw ci bosco bi expliquer ko ne ko comme quoi que dama bëggoon ngeen jël jën bi ngeen wàcce ko ci suuf ñu ne ko ah mu ne waaw ñu ko waaj aussi itam ñëw nañu jël leen jën bi commandant bi ne ngeen jël jën bi wàcc ko ci suuf dafay ñibbi dakaar su ngeen paree ngeen raxas bato bi su ngeen paree ginnaaw mbaal bi dañ ko xaroon ñu yéegal ko ci kaw ñu defaraat ko. bon ñu jël jën bi wàcce ko ci suuf comme ni mu ko bëggee moom. Mm-hmm. mu départ di dem. ñu pare ci loolu raxas bato bi yépp defar mbaal bi jël mbaal bi yéegal ko ci kaw li nga xam moom lañ xaroon ñu ñëwaat ko. arrivé à Dakar le 3 février passé. doomu patron yi patron bi ci boppam ñaari doomam ñoo fa ñëwoon ak benn huissier de justice ak euh, leur comptable mhm. leur chef comptable ñoom ñëpp bi ñëwee ñu taxaw ci li nga xam ne moom mooy salle de poisson bi foofu la waxtaan bi amee woon mhm. commandant bi ci la xamale ni moom indiwul bato bi comme quoi que ni marin bi moom moo bañ a liggéey. moo tax mu ñibbisi. moo tax moom mu ñibbisi te moom moo jëloon décision wu boppam pour ñibbisi. te moom moo jëloon décision wu boppam pour ñibbisi. allez-y. léegi si ban kii la dugg. bi mu ñibbisee dafa dugg si port Moldis. bon non je veux dire ban moyen de transport moom moo ko andi fi ngeen doon pêché ba muy ñëw ci kii bi. moyen de transport bi mooy bato bi. ma foog ne ma foog ne ngeen fa bàyyi kan kan moo resté foofu ci. non non kenn resté wu ko équipage bi yëpp ñëw ñibbisi. bi yàlla defee ñu ñëw. Mhm. bon moom pour défendre son poste de travail mu jaral ko mu ne carrément man amuma ci benn responsabilité marin yi ñoom ñoo bañoon a liggéey waral kon ma ñibbisi mais chef bi aussi tamit basé wu ci loolu ba licencier les seize les seize marins yéen newoo newoo leen fa ñu ngi fa taxaw lu tax défendre leen défendre nañ suñu bopp wax nañ li nga xam ne moom mooy dëgg gi mais aussi tamit chef bi c'est un égyptien il a voulu défendre le sang égyptien raison pour laquelle mu sacrifier les seize sénégalais. en commandant bi moom du sénégalais quoi. le commandant c' est un égyptien. ok. raison pour la laquelle ñu sacrifier les seize sénégalais. d' accord sacrifier nga leen dàq nga leen la je suis d' accord avec vous parce que yow yaa moom sa alal su la neexee nga liggéeyloo nit ki su la neexee nga dax ko mais fay ko àq ak yelleef am déet. nga retourner après nga dem nga ne dangay fay àq ak yelleef ba ñu dem ba commencer di calculer les droits. un moment donné nga ñëw nga ne bon fayatuma. commencé woon na fay. non non commencé woon na di fay c'est-à-dire que maanaam fayoon nañu lu ci mel ni comme euh, suñuy weer yi ñu daggoon wàllu congé bi ak aussi tamit euh, li nga xam ne moom la ñu jotoon liggéey foofu noonu muy les douze jours. bi mu ñu ko fayee ba pare après nangootul fay dara nen du fay droit du fay domage intérêt du fay yi mais après man li ma jaaxal mooy maanaam ci ci base bi lan la. ci lan nga ko teg ba tax doo fay. da ngeen jàpp ne injustice la. dañ leen sacrifier dàq leen ci lu dul yoon. effectivement. d'accord Kajoor. alors man de ce serait dommage que nit ku nekk ci ci jafe-jafe nga koy def ay reproches. Mm-hmm. mais je je serais désolé. de de de faire des reproches après peut-être ma am une question c'est-à-dire euh, yéen. Mm-hmm. tey yaa ngi yéen jël combat bi yéen kase alors que Sénégal fii baaxoo nañu di gis ay liggéeykat di affilié wu ci ay syndicat CNTS FC euh, xawma lan whatever euh, genre situation yu mel nii yéen seen doole dafa am fu muy yem syndicat bi daf koy jël porté ko à un niveau boo xam ne moom mooy gën a yomb am satisfaction lan moo tee yéen ngeen affilié wu ci benn syndicat parce que peut-être vous Euh, tout va bien ak naar yi eh, excusez-moi maa ngi sax di kii mais genre en tout cas sooy liggéey. normalement da ngay sóoraale da da ngay tenir en compte toutes les situations yoo xam ne mën mën na ñëw. Mhm. mais yéen dafa mel ni loolu euh, liwu leen ko l'entreprise bi ngay wax noonu. Mhm. Euh, ñoom ils ont fait de sorte que ñoom ils ont les moyens mais bi ñu amee problème ak Remaco. Euh, ils sont allés en ils ont cherché un un un truc un un, un avocat sénégalais mu mu défendre leen seen cause certainement sax gagné nañ ko. mais yéen vous êtes là euh, yéen ñi obligé di ñëw ci ay plateau alors que c'est un problème de justice boo xam ne. normalement ça devait être traité au niveau du tribunal lan mooy problème bi lu tax euh, nekkoon leen ci syndicat lan mu ban nan la leen syndicat yi taxawee bu fekkee na nga fa lan situation bi fan la toll. ok euh, bon par rapport ak euh, li nga posé léegi muy affaire syndicalistes yi euh, je pense que depuis le trois février bi ñu yegsee ba léegi euh, syndicalistes yi ñoo ñu gàttandu ñun ak ñoom depuis lors fépp fu ñu woo ñoom ñoo ñuy informé nañu woo nañ parce que ñun bi ñuy nekk di liggéey xamoon na ni liggéey tôt ou tard soit nit ki dafay dem ba doyal mu bàyyi mu démissionné wa ilaa ñu dem ba ci yàlla ba ci kanam yàlla am lum dogal ci seen diggante diggante liggéeykat bi ak kay liggéeyloo waraloon ñun ñu affilié wu ci li nga xam ne moom mooy CNT PS ak euh, Kurma te ñoo ñu ba léegi nii may wax ak yow dossier bi mu ngi ci seen loxo jusqu'à présent ba démb ci heure bii nii may wax ak yow euh, demoon naa pour jëli courrier bi nga xam ne moom moo waroon a dem au niveau de tribunal. Mm-hmm. dossier bi mu ngi nii. instant bi mu ngi ci loxo yoon du ma mën a dugg nag ci ci li nga xam ne moom moo nekk façon de juge bi parce que Sénégal bu fekkee ni dañoo nekk ci réew moo xam ne dañ ko bugg a defar je pense que de euh, wàllum justice dañ ko war a bàyyeeg ñi nga xam ne ñoom ñoo ko moom euh, ñun ci liñ mën a wax mooy comment et euh, est-ce que maanaam problème bi ni mu demee. Hmm. ni mu ni mu déroulé ci diggante marin bi. le commandant et leur chef man ci foofu noonu rek ci laa mën a yem dem nañ ba am suñu PV je pense que kon euh, am nan suñu syndicaliste muy benn ñaareel ba mooy que ni suñu syndicaliste waxtaan naa ci moom par rapport ak li nga xam ne moom mooy avocat parce que kii di tribunal parle de l'avocat te ñoom aussi itam biñ jox nañ ma loo xam ne mun naa ko teg ci sama loxo teg ko ci loxo sénégalais yëpp mooy que ni mm-hmm. euh, ñoom am nañ avocat yoo xam ne ñoo leen di traiter seeni dossier a chaque fois que ñoom seen marin mu am problème avocat boobu la ñuy jébbal dossier bi moom mu daal di koy lijjanti. est-ce que vous si syndicat yi ñu ñun euh, depuis que ñu commencé liggéey ci société ba léegi nii ñun ñun ak ñoom foofu lañu affilié lépp lu ñu mën a arrivé buñ fa amee jàmm ñoom ñu ngi au courant suñ fa amee leneen aussi tamit ñoom ñu ngi au courant mosuñoo umpante suñu diggante ñun ak ñoom Mhm. alhamdulilah ba yàlla def na ni sax daanaka saa yu déggante ñun ak ñoom rek ñu wax sax ci wàllu problème parce que mosuñu fa am ñun benn problème. alors balaa may ñëw ci Pape dama gis euh, ci seen chef de réclamation yi ngeen bind euh, mooy quatrième point bi ngeen def euh, paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi à hauteur de cinq millions par marin donc yéen loolu ngeen di xaar. chef bi marin bu nekk mu fay ko 35 millions. ñun dañoo def proposition. mais ci lan ngeen ko estimer ba mu. ci lañ ko estimer mooy 35 millions. maanaam tey si tey soo ko loolu dommage intérêt bi la. ok ok. dommage intérêt ak euh, droit bi ak bi soo xoolee trois point la bi ñu defee yooyu noonu yëpp ñoom nangu woon nañ au début par la voie de kase man li may wax nii euh, même su fekkee ni ñëpp ñu ngi may seetaan. mais je dis que aussi tamit li may wax ni man maa ngi taxaw ci sama bàmmeel dara jar lu ma may wax loo xam ni du du dëgg damay wax li nga xam ne moo ci am kase taxaw na ak suñu syndicaliste ni ko carrément pare naa pour fay pour pour pour wax ak patron bi pour mu fay droit yi. kuy kase kase mooy la chef comptable bi nga xam ne moom moo nekk almakaru al asma mooy ci société bi. moom bi mu paree wax bi mu waxee loolu suñu syndicaliste suñu syndicaliste wax nañ ko ñu ne ko ñun liñ bëgg mooy ñu liggéey ñun bëgguñu dara. et puisque le chef refuse catégoriquement de reprendre les marins pare na pour fay na fay. très bon c'est intéressant comme comme histoire parce que dafay revenir affaire marin affaire pêcheur bon bon tout tout ça. Mm -hmm. mais bon c'est c'est dommage quand même que nga yow nga ñëw nga wax mu nekk benn parti rek amul beneen parti bu nga xamante ne moom moo toog pour un peu wax lu voilà pour wax lu lu beneen version bi parce que boo de toute façon li nga ñu wax rek si loolu la ñu mën a tonk mm-hmm. euh, pour poser ay questions wala wala jéem a wala jéem a comprendre euh, mais bon peut-être man question yu ma lay yu ma lay poser d'emblée entreprise bi ñaata kii la ñaata ñaata bateau ñoo fa bon pour l'instant nii may wax ak yow. entreprise bi am na cinq bateaux. cinq bateaux est-ce que euh, ñi nga xamante ni ñoo demoon si opération boobu noonu demoon pêche rek ñoom ñoo fa nekk ay sénégalais walla si yeneen bateaux yi am na yeneen sénégalais yu yu fa yu fa nekk. bateau bi dafa sénégalisé wu. ok licence su Sénégal la am. Hmm. fii la nekk basé wu fii di napp ci suñu géej gi. Hmm. yaa ngi comprendre d' accord ñaata ñaata ñaata ngeen au total. au total nous sommes au nombre de seize marins. seize maanaam mooy ñi nga xamante ne ñooñu leen dàq am na ñeneen sénégalais yu nga xamante ne. am na des sénégalais. yu fay liggéey am na quatorze sénégalais ak deux ñoo xamante ne ñu ngi liggéey ci entreprise bi. yoo xam ne ñu ngi doon liggéey ci entreprise bi. non ñi ñu dàq mais ñi ñu dàq mooy ñi demoon liggéey je veux dire. oui entreprise bi. Euh, est-ce que am na ba léegi. ñoo xamante ne ñu ngi liggéey dàquñu leen. loolu laa mais pour pour pour juste rek ma faciliter la la réponse maanaam dafa am Massoud 1 ba 4. Mhm, mhm. am aussi tamit euh, Louis Sogé mais Massoud 1 dafa am équipage euh, boppam Massoud 2 la même chose Massoud 3 la même chose Massoud quatre la même chose. waa en même temps aussi tamit Louis la même chose. Mhm. maanaam léegi équipage bi ñu wàccee. te licencié leen. mooy ñi demoon mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon géej. te nekkoon ci bateau Masoud 1. d'accord d'accord te te motif bi motif bi nga xamante ne la moo tax mu wa wàccee leen mooy euh, da ngeen ñëw. te kenn santu leen ko. waaw moom euh, nee nañ ñu dañoo ñëw. Mhm. benn parce que ci commandant bi moom li mu wax ba waral ñun suñu licenciement. mooy. ñun marins yi dañoo bañoon a liggéey. waaw loolu moom moo tax ñu ñu ñu ñu ñu dàq leen quoi. waaw mais mais pourquoi yéen si seen biir comme que amoon na commandant moom commandant ki nga xam moo doon diriger affaire yi nekk c'est un étranger. Mhm. wax nga ko sànq mu mhm. yéen yéen a euh, ñi nga xamante ni sénégalais yi fa nekk ñëw pourquoi amoo leen benn représentant boo xamante ne su nekkee parole lay doon contre parole nga xamante ne même su fekkee da ngeen dàq sax di ngeen di am ci lu lu wóor ci lu nga xamante ne moom ngeen di wu. très bien par rapport à ça. dafa am benn leeral bu mu ci bëggoon a andi. parce que dafa wax lu am solo. et puis j'attendais à ça te démb rek maa ngi ciy waxtaan ak ay kilifa yoo xam ne ñoo ŋaañ ci wàllu ñoo ñoo ñoo maanaam ñoom ñoo nekk au niveau de Moldis lu ci mel ni comme bateau boo xam ne dafa sénégalisé so euh, le parole de cette personne. Mm-hmm. contre les paroles du commande du commandant dafa waroon nekk l'observateur sénégalais alors que. dans ces entreprises da ngay xool que ni dafa am un manque de ce poste maanaam amul benn observateur boo xam ne c'est un sénégalais. di wax ne carrément li nga am droit napp lii amul droit napp ko. mais man je dis que loolu noonu yëpp su fekkee ay problème am na ci ci li li nga xam ne mooy liggéeyu marin ak risque bi ci am ak liggéey bi nu mu noobalee le problème c'est pas les travailleurs le problème en fait c'est pas aussi le chef les chefs du moins je veux dire. gis nga problème bi nekk ci diggante liggéeyu marin pour mool diis problème ba fa nekk mooy intervalle kii liggéey ak chef bi intermédiaire boobu ci diggante boobu am na dafa vaste mais dafa bëri problème waral tout le temps yu mel nii du fa jóg mhm. tout le temps da ngay dégg problème mu marin ak benn société alors que man je dis que loolu dafa fekk ni marin bi benn taxawaay bi mu waroon a am ci ñu taxawu ko ko ba nga xam ne moom yenn yi dootu ci mën a nekk naan du koy jima di ci di ko révolté wu dina am koo xam ne kat mu ne ah man kat bërëb bureau bii nii wala bërëb bii bon man su ma amee problème balaa maa dem di gis sama syndicat naa dem gis ñii parce que ñii ñoo nekk les représentant des marins. Mm-hmm. te ñii ils sont reconnus par l' état. bi oui ay étrangers ñoo ko moom. oui bateau bi ay étranger ñoo ko moom. voilà ay donc li ci kaw yëpp ñoom ñoo koy gérer. Euh, ñoom ñoo nekk foofu commandant. Mhm. ñoom ñoo fa nekk officier. Mhm. ñoom ñoo fa nekk second mhm. commandant. ñoom ñoo nekk chef mécanicien. ñoom ñoo nekk aussi tamit moo li ca kaw yëpp ñoom ñoo ko téye. voilà et là et se trouve le problème. voilà et là où se trouve le problème. mais mais tout ça là soo gisee mu am. dafa fekk ni. maanaam même budul euh, dañuy jël gestion d'État mhm. mais aussi tamit gis nga le marin dafa ñàkk ku ko taxaw moom laa lay wax problème bi yaa ngi wax problème mais man je trouve que mhm. le problème mooy lii nga wax nii c'est-à-dire postes yi gën a mag mhm. étranger yi ñoo ko moom naam ñoom ñoo moom seen entreprise. Mhm. mais entreprise bi fii la basé wu. Mhm. donc ci poste yu mag yi. Mhm. ay sénégalais. waroon nañ fa nekk. effectivement représenter sénégalais yi. parce que fekkente ne ni ñoom ñoo mais à 100 pour cent le le bateau. mais mais xam nga xam nga man man li ma lay expliqué nii ah. man je l'ai parce que depuis mille 2021 à nos jours amaana suñu waxtaanee tuuti dina am loo xam ne sax dinaa leen ko ci wax leneen. parce que maanaam comme depuis deux mille vingt et ba léegi maa ngi ci bato bi. Mhm. te mosuma gis ci benn bato boo xam ne dafa sénégalisé. Mhm. di dem géej di ñëw ci suñu société bi ma nekkoon. Mhm. parce que aussi itam nit ki sooy wax dangay wax ak euh, li nga xam ne moom nga xam ngir bu ëllëgee bu ñu la laajee nga mën mën cee delluwaat li nga xam ne foofu laa nekkoon muy almakaaru al asma foofu ñoom même bu fekkee bato bi dafa sénégalisé post yi gën a rëy. égyptiens yee ko moom. foofu foofu noonu la la laay waxee c'est là danger parce que ah. dañuy ne licence Sénégal la yor pour commencer. Mm. licence Sénégal noonu la ñuy def c'est-à-dire xam mu ngi wax ne euh, du du bu fekkee ne euh, bu Sénégal la. xaw ma lan nga wax léegi. non en fait euh, je veux dire que par exemple étranger bi mënul moom. à ñoom moo tax ma wax waxu subterfuge xam nga nan la ñuy def. Mhm. moo tax il faut que ce nouveau régime là ñu. le nettoyage là. mu dugg ci ruux yi ngay wax noonu. Mhm. parce que dañuy ñëw ak seen entreprise ñu ñëw indi benn sénégalais benn benn wii wii jiital ko. Mhm. à travers moom ñu am licence Sénégal. bu ñëw bu ñu installé woo. Euh, sénégalais bi ci bas échelon bi lay nekk par rapport ak hiérarchie ñoom ñooy nekk si kaw tous ce qui est Euh, tout ce qui est intéressant comme ñoom ñoo koy loolu moo tax képp ku fay liggéey. et toute décision ñoom ñoo koy jël. voilà képp ku fay liggéey da ngay subir. Ouais. parce que c'est des gens yoo xam ne bëgguma stigmatiser benn xeet wala benn réew. Mhm. mais ñoom xeet gi ñu bokk. ñëpp xam nañu ne seen rapport. Mhm. ak seen liggéeykat dafa mës di doy mhm. dafa mës di doy waar donc il faut que les l'état là aussi. ñu dugg bu baax def le nettoyage dans ce domaine là. licence boo xam ne licence su Sénégal la que ce soit de sénégalais ñoom ñoo ciy dogal. c'est pas que dafa am licence y a des jeex na. mais de dans les décisions aussi parce que loolu moom mooy éviter yenn yi. parce que au moins. les sénégalais voilà amul benn équipe les yi fay liggéey ñu mën a am ku leen défendre. Ah mais bu fekkee yow ci ci ci hiérarchie bi. Mhm. bu dee dix la y a que deux postes et puis deux postes yu gën a suufee. Mhm. moom la sénégalais yor nga yaakaar ne ñi fay liggéey ban protection lañ ci mën amuñu benn protection dañ leen dañ leen ni dañ leen di sacrifier tout le temps. effectivement noonu la demee ba fi ñu si toll nii est-ce que am ngeen yaakaar. vraiment que problème bi euh, ñu résoudre ko parce que depuis février quand même. Mhm. Euh, mu ngi mu ngi bëgg xaw a yàgg. est-ce que depuis boobu am na benn avancée euh, par rapport dénonciation yi ngeen di def syndicat bi et tout que depuis lors am na benn avancée par rapport ak problème bi ñoom. les principales concernées ñoom patron yi chef yi. Mhm. est-ce que woo nañ leen walla am. lenn lu changé quoi ci diggante bi. effectivement maanaam comme li nga wax rek problème bi avancé wul delluwul ginaaw fi mu tàmbalee woon ba léegi nii. mu ngi fa mu ngi c'est-à-dire que maanaam euh, depuis le 3 février ni ñëwee ba joon yàlla tey euh, maanaam demuñu tribunal ba ñu wooñu benn yoon wala ñaari yoon PV baa ngi nii. gis naa ko maanaam démb la lay PV bi di soog a génn boobu ba léegi. depuis trois 3 ba démb lay soog a génne bi mu génnee démb ci laa ko soog a jël def ci 3 euh, photocopie après demoon naa sax siège u frappe ba jébal naa benn bi Guy Marius Sagna mais je dis que loolu noonu yëpp soo gisee mu ama ah, li ma leen di wax wallaahi mooy problème mu marin euh, maanaam marin bi amul représentant bi nga xam ne moo ko war a taxawu comme il faut. maanaam di ko demal di ko waxal di ko jëfal parce que marin bi il n'a pas assez de temps ci li nga xam ne mooy ay wàllu repos imaginez marin bi su demee géej def un mois su ñëwee il n'a que 72 heures maanaam jour bi 48 heures du moins maanaam jour bi mu yegg si si c'est suñ ko libéré jox ko salaire am à midi mardi midi mercredi midi. dafa war a nekk sur place. te loolu moo nekk ci contrat te non contrat contrat loolu la ñuy liggéey mais man je ko foofu noonu. mais waroon na am waroon na waroon na waroon na am benn affaire boo xam ne maanaam poor bi loolu su fa teewoon dina gënal marin bi te et puis dina yombal aussi tamit dund marin bi parce que marin bi tamit bu buñ ko fàtte malgré géej lay nekk duñ ko dégg téléphone mais sénégalais la. Ah, am famille sax dafa am famille am soxna am ay doom. Mhm. da ngay def un mois nga ñëw. sa soxna am doom sa ginnaaw ñu ngénte sa ginnaaw tudd xam nga def lépp sa ginnaaw korité bi nii rek man xam naa ni sama gars yi nga xam ne ñoom laa bokkaloo nekk Massoud te ak yi geneen gars yi ba ci Massoud 4 récemment rek la dem ba 3 bi aussi tam moom mu ngi woon euh, mu ngi woon fii sax euh, à terre euh, ñooñu ñëpp ko fee lañ korité nu mu tudd biir géej. léegi seen ni nga ni nga expliqué ni ngeen di liggéeyee. Mhm. un ñu jox la. 72 heures de repos. non 48 heures de repos 48 heures de repos. oui man je me dis que exploitation la. mais est payoor mi payoor mi tamit ndax demee na noonu. loolu man je dis que. li ngeen di liggéey ñu ngi leen di fay. quand même benn salaire bu bu bu bu jaar yoon bu raisonnable. Euh, ñu ngi ñuy fay selon ñoom nit ñu war a fayee. li ngeen dégg wax selon ñoom li ñu déggoo mais man je dis que foofu noonu maanaam ki nga xam ne mooy chef bi problème bi fenn rek la nekk. mooy chef yi ñoo war a am benn tolérance bu ñuy dawal envers leur travailleur parce que tey si tey su fekkee dangaa ñëw nga investir bu la neexoon doo ko def mais boo demee ba def ko nit ki di fi liggéey di suturlawu mais aussi tamit jàppal ni yow yaa ngi ciy liggéey di ci suturlawu. d'accord parce que moom bu ci bu ci defee effort 100 pour cent yow di nga ci gagné lu tolloog 1000 pour cent. merci bon rapidement. bon ouais, franchement moi pas peut-être semaine kii bon ñu ñu ñëw quoi mais changé nañ ministre euh, am na benn benn ministre docteur Fatou Diouf mooy mooy ministre de la pêche maintenant. Mm-hmm. Euh, ku xam secteur de la pêche la parce que docteur la en euh, droit maritime et tout ça. Mm-hmm. donc affaire ay pêche ak affaire yooyu yëpp moom moom xam na. Mm-hmm. bon est-ce que jéem ngeen ko dem xool pour. wala ngeen bind ko xam naa ne sax peut-être je mu jëlee fonction wax léegi bon matul sax une semaine euh, pour mu jublu ci seen mbir et puis bon euh, comment dire lu lu gën a large possible mm-hmm. xool aussi tamit ba bateau ba bateau yu nekk foofu sénégalais yi ni ñuy ni ñuy liggéeyee pour ah, seen situation voilà pour seen situation gën amélioré wu waaw ah, euh, moo bon nag ñëw defu jotaguñu def loolu mm-hmm. demaguñu pour gisante ak le ministre aussi su fekkee wàllu bind ko man de defaguma ko mm-hmm. amaana puisque seize personne lan amaana am na ku koy def mais man en personne. ku koy def cest à ku koy def maanaam euh, tey si tey xeex bi du man rek. waaw man su ma jaaree nii. am na ñuy jaar am ñuy jaar mais da ngeen di dem vers ça. waaw mais. dem ci moom dem dem ministre bi nga xamante ne moom mooy. moom moo jiite lépp euh, moom euh, gënul mën a indiquer balaa ngeen doon dem sax euh, tribunal peut-être moom mënoon na ko régler je sais pas moi à l'amiable xool ma xam ne ko ma parce que je trouve que motif bi nga joxe ngeen dem ngeen ñëw pour affaire pêche jën bi dangeen ko bàyyi foofu bateau bi dafa ñëw pour man loolu c'est un motif très léger que mu nekk non jën bi jën bi bàyyiwuñ ko fa non je veux dire da ngeen da ngeen ñëw dafa wax ne yéen bëggoo leen liggéey waaw loolu mooy motif bi bëggoo leen liggéey maanaam lu commandant moo leen liggéey loolu laa wax ni motif bi dafa foofu noonu a liggéey waaw loolu laa wax loolu comme motif loolu bu nekkee motif pour man loolu c'est très mais est amul est amul yeneen yeneen yu mu am yoo xamante ne dafa bëgg a débarrasser wu dafa bëgg a recruter ñeneen affaire yooyu mais loolu lu wax dëgg neex yàlla donc mais pour man fallait fallait écrire d'abord le le ministre avant le ministre dinañ ko saisir ok mais soo gisee defuñu ko woon dossier bi dafa nekkoon ci loxo anam te ANAM ñoom ñoo censé woon. agence nationale des affaires maritimes. très bien ñoom seen seen role joué nañ ko ba mot sëkk ci dossier bi. maanaam woo nañ ñaar ñaari camp yëpp pour jim fexe ñun ñu jëlaat ñu benn yoon ñaari yoon par la voix de monsieur Faye mu dem congé par la voix de madam Ba deux fois par la suite ba monsieur Faye démb lay soog reprendre fonction. merci ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk yi. maa ngi jaajëfal ñëpp euh, di leen sant. di wax ni aussi tamit euh, ñu ngi ñaan à que suñu problème bii nii yàlla def ci jàmm mais yàlla aussi tamit dimbali ñu ba képp koo xam ne dégg nga ñu rek. nga dimbali ñu soo soo soo soo ñu mënee jàppale nga jàppale ñu te yàlla tax parce que tamit euh, c'est des pères de famille yoo xam ne ñu ngi toog te affaire bi métti na ci ñoom. Mm-hmm. jërëjëf ngeen ko fi ngeen ko war a yóbbu. merci bi Maristaa ñaar ah bon yaa am loolu yow ñu ñu di wax suuf yaa koy wax si kaw. ah bon bon courage. ñëpp mënuñu ko merci en tout cas on espère que seen problème dinañ ko régler. mais man j'aurais bien aimé ñu am. ku nga xamante ni ci société bi la bokk al. makaaru al al asma. bu bu mu nee am man. Ah. mën naa ñëw toog ak moom ñuy waxtaan. moom na ñëw comme ça ñun ñu déglu aussi ñoom seen ah, version. bu amee man bu amee sax loolu mën nañu wax. li nga xamante ni moo motivé. Mhm. seen seen acte bi ñu def. d'accord ñu ngi lay jaajëfal. ok merci beaucoup te ñu ngi leen di souhaiter vraiment bonne chance pour la suite on mhm. euh, les autorités compétentes dinañ ci jël ay dogal ah, parce que li mu fi wax nag itam. dëgg yàlla doy na waar ay ay ay ay sénégalais la ñu yor seen liggéey d'un seul coup ñu dàq leen comme ça sans fay leen ay dommages ak ay intérêts dafay xaw a doy waar. merci beaucoup ñu jaajëfal di la souhaiter nga passer une très journée. léegi léegi ñu dikkaat dalal Ndeye Pétaw.